salawaatullahi wa salaamuhu ala ashrafi alaalamin sayidi al awalina wal axirin nabiyu rahma allazi arsalahu allahu rahmatan lil alamin sayidina wa xabibina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi alkiram wa saxaabati alcidaam wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yowmi din amma baadu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 yàlla mi nga xam ni ku mu barkeel nga barkel yal na yàlla bokk na barkeel yàlla mi nga xam ni ku mu dotti yërmandeem gi dootoo jaaxle yal na yàlla dotti mandem ci sunu kaw bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nuyu ziyaara ndokkeel kilifa diine yi ñaanal wayjur yi nga xam noonu bokk njaboote yal na yàlla dolli wér yi waaye ñaanal soppe yeeg xarit yeeg am di jàmm yi waaye ñaanal bu baax sunu directeur Haj Makhtar Silla yàlla dolli ko taxawu ba mboolem tabarfakalla projet yi yàlla mottali ko bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaye bége mboolem koo xam ni soppe nga ak xarit nga waaye rawatina di soppe sunu Label TV nga xam ni ci xolu sénégalais yi la ne waaye teyit tabarfakalla mboolem fu waay ne yaa ngi ànd ak léegi di ko seetaan ngir lan yaatal geneen goo xam ni yaatuwaat na ci télévision bi waaye lépp rek di ay avancement nga xam ni macha allahu rabbi ki ko jiite taxawaayam waaye ñi ci ginnaawam seen taxawaay ba moo waral tey tabarfakallaa avancement yooyu yëpp ñuy ñaan yeneen yàlla na ci topp ba ñuy tudd ay yeneeni yeneeni tabarfakallaa sunu label yoo xam ni ñoo koy samp ci adduna bi ñaan sunu borom yàlla ne la def tawfiix googu Euh, dellusiwaat ak yéen ci seen émission jilsatu nabi di jataayu sayduna muhammad wi sallallahu alayhi wa sallam ni ngeen ko miinee ci suba si nga xam ni ñun ak yéen ñu ngi ànd rek ci jataay wa di yonte la muhammad ba mu toogee euh, tabarfakallaa ni bëgg na ñett euh, aboubacar saddiq ne ko nabi segam daaneel nga say ñett manit maa ngi ci samay ñett aboubacar wax na premièram ñun ñëpp jàng nañu ko démb Euh, te mooy euh, li Aboubacar wax ni moom ñett yi mu bëgg bokk na ca ba ca njëkkoon ngeen jàngoon ko démb mooy julu su bay na ya dayka toog ci sawet rek man jol màkk man daal bii mooy sama première bi ma bëgg ci àdduna mooy man daal nabi su ma sañoon damay toog rek ci sa wet moom la Aboubacar jàng démb jàngale démb parce que xam na ni lel nitu yàlla ba waxoon euh, daf ne man jaala sala attaara taaba bi tiibihi waaye wa man xaalatal xaddaada naa la sawaadi <laughs> waaw waykat ba loola waxoon eh, Moussa waykat ba nee na ku jaxasoog borom parfum léegi ngay xeeñ parfum parfum moom borom parfum kuy jaay parfum ku jaxasoog moom rek nekk xaritam kaay ma wax la ku parfum nga parfum wu ku wul nga parfum <laughs> parce que jaaykat parfum nga àndal Aboubacar lool la xamkat moo tax mu ne man xam nga lu ma bëgg toog ci sa rek xam na ni ku toog ci wetu njol màkka toog nga ci wetu yàlla ku toog ci wetu njol màkka yàlla ànd ak yow ku toog ci wetu njool màkka yàlla bég ci yow Obakar ko man daal toog sawet moo tax démb Obakar ne boobooy première am bi bëgg waaw wa man xaalata al attaara wa man jalasa al attaara taaba bi tibihi ah borom ku ko jege fu mu laale laalal Ah, fu mu piise piisel la ne la sa ay a ah, ku jege jol màkk xam nga dinga di nga mos de aw ne ko man daal toog ci sa moo tax toog ci wetam googu moo ko yóbbu ci addunam ba bi abubakar faatoo bi muy dee dafa dénkaane ne waxuma bu ma kenn suul fi ñu suul ñëpp mais dama ne balaa ngeen maa suuli fi ngeen suul ñëpp dama bëgg su ma deewee teg leen ma ci buntu rawdu jol màkk ngeen déglu ndax duma woo ma ñëw ci moom waaye Moussa bu abubakar deewee bañ ko tegee ci rawdu rasulullahi dañoo jékki-jékki dégg kàddu guy wax ci bàmmeelu njol makka ku naan jël leen soppe boobu taf ko ci wetu soppeem looloo andi aw bakkar ñu suul ko ci wetu rasulullahi de moo tax boo nee aw boo nee muhammad danga naan aw bakkar moo taftal ci wetam dog ne omar bun xattaab moo tax aw bakkar ne ko toog sa wet mooy sama première li ma bëgg aw bakkar daaneel bi mu bëgg na ñaareel bi wu bëgg nag mbokk yi tey moom la ñuy ànd ban mooy ñaareelu Abubakar mu ne ko sama ñaareelu la ma bëgg man Abubakar Saddiq ci àdduna segam ñett laa wax joxe woon naa benn démb bu ñaareelu tay bi Abubakar nee na mooy wan faaqu maali alayka rasulullah li ma bëgg ci àdduna ñaareel bi mooy sama alal nu mu toll rek naa ko dépensé ci mbokk yi ñu déglu bëgg-bëgg Abubakar rek dara génnul njol màkk Abubakar li mu bëgg yëpp ko delloo <laughs> wan faaqu maali sama ñaareelu mbëggeel ci àdduna man Abubakar li àdduna yaatu yaatu ñett laa fi bëgg toog ci sa waaye deuxième bi mooy sama alal ma koy jox wan faaqu maali aleyka su ma sañoon njol màkk loo da joxoñ ma dagg ko <laughs> su ma sañoon loo bëgg ma taxaw ca su ma sañoon sama wërsëg da nga koy laaj suba ba ngoon ma koy jeexal ceew wan faaqu maadi alayka li tax nag <laughs> Moussa yàllaa ñu ko waxoon waaw waxoon ni yaa ayu ladina amanu ni yàlla am na te d'accord ne rasulullahi mooy kilifa gi ñu ne la bayk mu ne iza naajaytumu rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqatan yàlla nee na yéen ñii toog a rasul la yéen laay waxal ku fiy déeyoo teeg nabi mbaa nga koy laaj masala mu lay tontu dama ne day leen yëkkati dara di ko jox <laughs> dégg rek waaw ah, Moussa yàlla nee koy laaj nit masala mu lay tontu del yëkkati dara di ko jox <laughs> ah, waaw waaw yàllaay wax yi de yéen ñi gëm yàlla ñu ne la béyk mu ne eh, bàyyi leen nabi mi ngeen di déyal bu ngeen paree mu faj seen aajo ci kaddu yi ngeen ko laaj teen bu ngeen ñibbee du ngeen ko bàyyee dara de leen ko jox dara isa naadaytumu rasula dama bëgg su ngeen ñëwatee ci njol màkka fa qaddimu waa yaday najwaakum sadaqatan yëkkati leen taraanga jox ko zalik yëkkati taraanga jox nabi de xayrun lakum moo gën ca yéen wa atharu te mooy gën a laabal seen alal laabal seen xol fa in lam tajidu su ngeen amul lu ngeen ko jox laaj leen masala te ñibbi garaawul fa inna laa yàlla xafurun rahimun jéggal na leen seen ñàkk joxe gi tey ndax dangaa banque rahimun yàlla ko am yërmande la moo tax mu baal leen ko waaye ku jàkkaarloog Moustapha danga ko war a jox taraanga Aboubacar Aboubacar ne ko man li ma bëgg mooy sama ñaareel mooy wan faaqu maali aleyk nabi su ma sañoon la yàlla wax mooy ku janoog yow jox la taraanga man de su ma sañoon sama taraanga yi ma am heure bu ma xëyee dina këpp def na ko nag de awa def na ko nag Moussa Aboubacar def na ko de Aboubacar bokkoon na ci milliardaire u Makkatal Mukarram waaw moo tax bokk na ci ñi soutenir Seydina Muhammad ci wotem gii alalam alalu rasulullahi la woon ba tey pàkk bi yonent bi tey tëdd foofu yonent bi tëdd tey nga xam ni ñu jógee barki démboo njaay ca voyage ba dem foofu tiimi ko ñu ne foofu mu tëdd pakk boobu li ko wër yépp alalu Abubakar lañ ko jëndee su mastara mirbadal mawsuulu maadilatan min maali siddiqihi pàkku njool màkk boobu mu dëkkoon muy këram gi bi mu yegg see Medinatul Munawwar alalu Aboubacar Saddiq lañ ko jëndee te boobu Aboubacar desewul lu dul vingt cinq mille képp képp képp lañ àndaale bi ñuy ñëw <laughs> vingt cinq mille dong lañ àndaale ñoom ñaar alalu Aboubacar di vingt cinq mille ci poosam ñu waxaale pàkk bi ñi koy jaay ne vingt cinq mille lay jar Aboubacar yëkkati vingt cinq mille ba fayee ko ko moo tax Aboubacar bi ñu ñëwee Medina. mu bokk ci ñu ñàkk ci te moonte ne màkkatal mu karam ci millionnaire yi la woon de <laughs> waaye biñ ñëwee Medina àndaalewul un franc la mu àndaale woon moom la jëndee pàkk boobu sayyiduna Muhammad dëkk wan faaqu maali aleyka keroog bi Mustafa bi Mustafa bëggee génn màkkatal mu karam la jël ko Mustafa diis biir màkka lool parce que magi màkkatal mu karam yi am doole yépp contre nañ ko te ñaar ñi ko doon soutenir moom Seydina Muhammad nga xam boromi doole lañ woon ci Makka faatu nañu mooy Abdul mi bàyyi ci moom nga xam ni moo jur Alin ak Xadijatu bintu Xuwaylid mi soxna ci moom ñaar ñiy faatu Mustapha néew doole waaw min baadi sabbin wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfawhu min idami nabil mustafa néew doole ñu commencé bundu xataal ko makkatal mu karam ba Moustapha xëy sunu borom ne ko réunion nañ réunion boo xam ni pexe yi mooy dañu lay rey mbaa dañu lay tëj kaso mba ñu génne la màkka waaye réunion bi nag la ñu tënk mooy nañu la attaqué rey la parce que waa ju ñuy wax Iblis dafa dem fekke réunion bi bi ñu joxee ñoom magi màkkatal mu karam seen xalaat Iblis joxe xalaatam seen xalaat mooy nañ ko génne màkk walla nañ ko tëj parce que xale bi buñ ko tëjul jeunesse su màkkatal mu këram yépp lay convaincre làmmiñ wi daa neex <laughs> loolu la magi màkk wax yéefari Màkka yi naan làmmiñ wa daa neex day convaincre xale yëpp ñu ne nañ ko tëj mbaa ñu daq ko màkkatal mu këram mu génn mbaa ñu rey ko Iblis na dañ ca réunion ba nekk mag mu màgget <laughs> yor yat ne leen dégg naa seen wax waaye waxi xale ngeen wax <laughs> ay waxi nañ ko tëjëg ay nañ ko génne màkk loolu waxi xale la kii bu ngeen ko tëjee day convaincre ñi ci kaso bi ñëppay doon jullit kii bu ngeen ko génnee màkk day wuti doole ñëw song leen daal leen kii benn pexe rek laa gis nañ ko rey magi màkk ne wax nañ dëgg de ñoom abu jëli nag ñoom abu sufyaan ne dëgg la de nanu ko rey ñu ne ko mais góor gi nuñ koy reyee ku ko rey ñu jàpp la mu ne déedéet kenn du ko rey ñaata famille fi ne ñu ne ko douze famille ngi ci dëkk bi mu ne douze famille ku ne da ngay participer ku ne na àndi xale yu góoram ñu ànd dem këram bokk jàpp ko dóor ba mu dee buñ ko reyee du famille yépp yi ne ci réew mi ñoo bokk rey ko kenn du tëj kenn kenn du songu kenn ñu ne wax nga dëgg de góor gi xalaatam rafet na de <laughs> ah, waaye waaye xam ngeen ne xalaatam rafetul waaye xalaatam ñaaw na la ñuy wax mbokk yi waxtu wi dab na ma <laughs> waaye xalaatu góor googu di Iblis xam ngeen ne rafetul waaye damay teg baaraam maag yéen jox leen rendez-vous suba Aboubacar nee na li ma bëgg ci sama àdduna mooy jox yonent bi sama alal mbokk yi waa Makka ngay fexeel Seydina Muhammad ñu xool pexe moomu ginnaaw bi ci Moustapha dee mucc Aboubacar nu ca participer alalam day doon suba sunu waxtaan mën ak yéen ci sunu Label TV ci jilsatu nabi di jataayu Seydina Muhammad bi waxtu wee ma dab waaye ma teg foofu baaraam maa ngi gërëmaan ñëpp di santaan ñëpp isa aradtum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa ari haytaluma mi bokke asalaamu aleykum wa rahmatullahi